waaw mom pourtant la connexion là elle est elle est bonne de la connexion est bonne invitation bi laa envoyé mu mu tout tëdd sax mu coupé donc ma ngi si jéggalu bu baax a baax donc machallah euh, alhamdulillah allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima القادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرداء والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والشقاوة والتعسير وتكون لنا بها وليا ونسيرا أنت ولينا ومولانا فالنعم تسير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دا مل نك بينا بودا غاتي موم ني اريتي بو دا مل ني ساي غودينا صاح مل ني ساي ماغي نياك توي خيب اك سما غريب بي واه حبل لي موم جهات لا moo dama ne awma droit grippe bi moom amul droit téye ma pour ñu war a waxtaanee lii ndax c'est pas normal ñuy attaqué oustaz Makhtar di ko saaga di ko xas ah lii moom war ñu koo nangu waaw xas bi ñu koy xas ak saaga bi ko taaliba cheikh yi di saaga taaliba el cheikh yi xaseeg saaga yi dafa mel ni ñu ngi saaga yonent bi sallallahu alayhi wasallam te ñu ngi xas yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw lii soo demee ci ifaatul ahmadiya ku ñuy wax si di Tayyib Sifiyaani ànd na wax googu jottali ko muy waxu Seydi Ahmad Tijaani bi mu jottali ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc yal na yàlla dimbali ñu yal na yàlla yee nit ñi yal na yàlla yee ba ñu xam ndaxte yaa bokk na choses yi nga xam ne wax dëgg yàlla doy na waar lool doy na waar waaw yal na yàlla dolli tawfiix incha allah. waaw Alaaji xaa waaw alaaji xaa alaaji xaa ngokk waaw macha allah alaaji xaa ñu nga de tey moom ñu ngi ci ñu ngi ci beneen faux xutbu ndax ñu moom ñu ngi débusqué les bu xutbu fenkat yëpp fenkat yi yëpp rek incha allah ñu ngi seen kaw donc ñun moom yàlla fu ñu digal ñun ñëpp ñu xeex faux n'est-ce pas waaw ñu xeex faux ñuy dénoncé waaw dëgg yàlla lii daal lii daal mbir mi lool la sama sëriñ nag moom instant moom Cheikh Baye la invitation paspade. Mr. Paspade. Yes, I, I know that you are back. I see you online. I've sent you uh, an invitation. Yeah, Sheikh. Ah bon, ah, voilà, la invitation. Mm. xaadim waaw sëlëf ah alhamdulillah ma jot naa jot naa sëriñ bi sama sëriñ ala kilifa gu mag gi sëriñ bi ziar naa la ziar bu wér a wér gën jee màgg ak gën jee tedd ziar waaye sëriñ bi bàyyil ma ziar la na def mukk man maa ngi sa ginnaaw maay sa taalibe maay sa taalibe numéro un nag <laughs> alhamdulilah bul ma lakk ci ginnaaw Cheikh ma lakk <laughs> <laughs> <coughs> naka naka yëngu yi. ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. naka xarakaat yi ak sakanaat yi. wallahi alhamdulilah. naka liggéey bi. am mbégte ci ci dégg la am mbégte bu wér a wér ci dégg la. wallahi kontaan euh, lool kontaan lool ci di suivre waxtaan bu am solo bi macha allah. ba ñu demee ba ñu demee Touba. Mm-hmm. Euh, fekk nañ fa ay mbokk yi nga xam ne waxtaan nañu waxtaan bu am solo ci yow. ndeysaan maanaam jëw nañ la jëw bu rafet ndeysaan. ci euh, qualité waxtaan bi fa waxtaan. Euh, ci umma man man suivre naa ko sax si YouTube. ndeysaan mais macha allah dina si ndokkeel beneen yoon. ndeysaan xam naa bëri xam naa bëri nañ jumte nag na nañ jumte ne ñu ngi ciy jéggalu. mukk mukk mukk. mukk ñu gis en tout gis si jumte gis si benn jumte alhamdulilah bu ci gisoon jumte dañ koy wax. seen barke la dañoo sawar ci dañoo sawar ci wax. <laughs> macha na solo. <laughs> alhamdulilah. tey nag ñu ngi doon waxtaanee. <coughs> naam euh, lii nga xam ne mu ngi commencé am si tarixa tijaan. Mm-hmm. Euh, te loolu lu ko andi mooy euh, kuréel yi ni mu bëree. Mm-hmm. te jamono bi lu tarbiya bi wàññeekoo ci taalibe yi. ba woote yi di gën a bëri naxe bi commencé dugg te tarixa bi wax dëgg yàlla tarixa xam-xam na mm-hmm. lii mosuñu ko fi miin mosuñu ko xam ci lii wax dëgg yàlla. donc woote xutbaani ya commencé na bëri te man damay gis ñëpp ñuy woote jamono bi ñëpp ñuy askane seen bopp taarix tijaan Mm-hmm. dégguma kenn kuy woote par exemple si tarixa laayeen dégguma ko fi Sénégal mm-hmm. dégguma ko kenn kuy woote si tarixa xaadiriya fi Sénégal wax dëgg yàlla dégguma ko fi mm-hmm. dëgguma ko si jamaat jamaatu ibaadu rahman bu ko fi dégg tamit tarixa tijaan kese laay dégg woote yi c'est vrai que nag ci benn côté xam naa ni yiw la ndax madat yu kawe yu ngand yu daw ci gars yi askar xam naa ni moo tax gars yi xam naa ni yaakaar ne ay gaynde lañ loolu dafay wane tarixa bi tarixa baa ngi dund waaye nag lii war nañ ci xool dañ ko war a aartoo wax dëgg yàlla ndax lii moom plus muy dem plus muy muy yàq dëgg la waaw macha allah aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayidina wa mawlana rasulillah wa ala alihi qadrihi wa miqdaarihi alazim azim ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani maa ngi nuyu sëriñ bu mag bi di Cheikh Omar Diagne mm-hmm. euh, di nuyu boolem kilifa yi nga xamante ne ñoo ñuy déglu wala ñoo ñu nar a mm-hmm. euh, waxtaan wi am na solo solo soo xamante ne euh, lu nit doon def war na koo bàyyi pour teewlu ko taar mm-hmm. déglu ko waaye teewlu ko ngir jëriñu ci allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana yàlla nañ ci yàlla boole comme ni nga ko gisee nag phénomène la boo xamante ne xew na te cause yi ko waral bëri lool jàngkat yi ak euh, waaraatekat yi ak euh, kilifa yi kenn ku nekk mën koo jàngatee ci anam yu wuute waaye euh, résultat bi nga xamante ne moom mooy résultat final bu muy jur buñ jugul mooy effondrement wu tariqa bi ak jeexam mhm. ak tamit may puissance nonu tariqa bi ak ñi nga xamantene dañu dañuy lëbb nit ñi ci tariqa yi may leen fu ñuy jàmp tariqa bi loolu war a tax nak ñu gëna a góorgóorlu ci jug ñagaat ko ndax lu dul rap amul lu format amul loolu waraloon na sank wax nga hadith bo xamantene yunus bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako inna allaha yab'asu ala rasi kulli miati sanatin man yujaddidu lin-nasi amra dinihim comme xam na ne diine wala dégg-dégg ni diine dina xoomaat jamono dina avancé da ku ko yeesal mu tax tajdid di am mu jaddid di ñëw léeg-léeg ci xikma wu yàlla dina gis ne sax soxlawuñu tajdid kese waaye humanité def na foo xamante ne tabula rasa la ñuy soxla ñu indiwaat sharia bu bees ñu folli sharia bi fi nekkoon nas kon yàlla ci sunnaam yooyu noonu walan tajidali li sunnatillahi tabdilan walan tajidali li sunnatillahi tahwilan سنة الله التي qad خلت في عباده سنة yooyu بس ba saa di taxaw كنا دي أم لكن léegi طريقة fekkee دفع بوك dafa bokk ci biir lislaam il faut moom tamit loolu di gaar lislaam dina ko gaar ndax même ci biir daairatul islam bi nga xamante ne maqaama la ci maqaamaatu diini salaasa muy al islam al imaanu al ihsan léeg-léeg nga gis ci fuqaha yi imam malik par exemple muwatta malik benn mujallad la ci ñaari juzu hmm. waaye tey jii Muwatta am na chara boo xamante ne ci cinquante tome la léeg-léeg hmm. am ku ñëw def muxtasar waññi parce que jamono hmm. ju la laaj am ku ñëw def xaamish am ku ñëw def nangam donc commentaire yooyu ñuy def ñii di supprimer lii ñii di yokk lii ñii di wàññi li c'est par rapport ak jamono bi ni ñuy doxee ak niti jamono bi fi mu toll bu ñu jël yooyu il faut miir bi dina xar te bu miir bi xaree ay sindax ak ay kii ay ump danañ ci dugg te pour danañ dañuy dëgg la <coughs> dëgg la léegi nag tariqa tijaaniya cheikhu tijaani radiallahu anhu daf cee def daf cee joxe benn base boo xamante ne moom mooy kanu fondamental bu téye tariqa bi bis bu daanoo rek bi daanu dëgg la mooy slogan boobu mu wax ne iza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i ma waafaqa fa xuzuhu ma hmm. xaalak fatruku fatruku dëgg la gis nga wax jooju il me semble que ñu bëri dañ koy wax mais xamuñu valeur wax ji dañ koy wax ne rek gàmmu ak neexal conférence yi mais xamuñu porte valeur wax ji effectivement c'est vrai Seydi Ahmad Sukayrij mi nga xamante ne xalifa Cheikhu Tidiane la woon ci jamonoom sànq dégg naa nga tudd ko moom bi mu hmm. ñëwee kaw wax jooju dafa wax ne hmm. même bu fekkee même bu fekkee Cheikhu Tidiane hmm. peese ko ci balance yu mat ci alxuraan ak sunna mu wuutee dafa war ñi teg waxu Cheikhu Tidiane boobu topp alxuraan ak sunna mm-hmm. ñi jàpp ne Cheikhu Tidiane li mu wax noonu ci beneen maqaama la ko waxee waaye waxu ko pour ñu topp ko dëgg la dëgg la eh, mm-hmm. tariqa bi nekk tariqa xam-xam bàyyi ñes bi muy chara wax jooju daf ne kon tariqa mm-hmm. tariqa ya wala tijaan bi amul excuse ci ñàkk a xam amul excuse ci ñàkk jàng اذا المنتاليتي عزم في عدم التعلم او في الجهل اذا با ديسكوز سيرين بي كي روت يعني جوخنا لا ميساج بو خامتيني موم غورا بورتيل هومانيتي تا ميساج بو نو مونو كا بورتي بو فكي داغا نيك ignorant لغي ني نيو جامونو كليفه تيجاني دي جانغالي آه، مقدمي دي جانغالي دي يار طالبيه ñëw ba benn jamono boo xamante ni dafa ne dafa mel ni loolu dafa disparaître dégg naa nga tudd Papa As muy El Hadj Abdoulaye mm-hmm. taawu Baye mm-hmm. nga xamante ne bu nit mm-hmm. ñëwoon pour jël tarixa ci moom daf koy laaj base bu mu am ci diine wala base bu mu am ci alquran dëgg la mais léegi loolu yëpp dafa disparaître benn xale mooy jugee fee rek ñëw dafa bëgg kii nga gis xale boo xamante ne ay 14 ans 13 ans téye kuusam di ngàññi ngàññi toll ci jamono jàng du jàng ah toll ci jamono wala ku toll ci jamono jàng métier du jàng métier téye kuus ku nekk finalement dootu toll bu baax dootu boo waxee mu ne la moom yàlla lay dundu fu muy mm-hmm. mujjee mooy day mm-hmm. dem ba màgg avenir am yàlla amul amul métier amul métier amul xam-xam bu ko defee ci fanatisme fanatisme éternel lay waaw <laughs> <laughs> uh, li nga xamante ne moom la ñu waroon def mooy hmm. tey jii tarixa tijaan waroon naa am comme di fiq malik am te loolu moo fi taxawal hmm. mazahib yi ba léegi mooy fiq malik hmm. tey jii boo ko commencé jàng xam nga ne bu dee ci Sénégal la laxdari yu ñooy commencé boo ci paree yaa ngi maachir boo ci paree yaa ngi jàng ashma boo ci pare yaa ngi jàng risala ainsi de suite ba ba ngay àgg ci tasar xalil doo tëb tëb rek dem jàngi muxtasar xalil il faut nga commencé ci laxdari yu tey jii boo commencé ci naxwu xam nañ téere bi ngay commencé jàng ba ba ngay àggee ci ibnu malik ba ba ngay àggee ci duroy doog yooyu noonu doo tëb tëb rek dem jàngi alfiyet alfiyet ibnu malik waaye tarixa bi loolu amu ci tey jii amul benn lan naa ko mën a waxee benn établissement wala benn programme boo xamante ne ku bëgg a xam tarixa bi da nga ko naan fii lay très bien fii lay commencé fii lay jeexalee ba nga xamante ne ci génnee ñu mën koo jox benn accréditation accréditation boo xamante ne yow tu es accrédité nga wax ci tarixa bi dëgg la yow am nga autorisation wax ci tarixa bi lu wér nga wax dëgg la mais benn waaye mooy nekk ci néegam wér ba bopp bi tàng rek mu génn téye kurusam kaalawu ne moom léegi muqaddam la dafay taxaw wax ci tarixa bi lu ko neex bépp xikaaya bu mu dégg moo xam mu wér moo xam mu ñàkk wér mu toog firi bu mu ko neexee très bien waaw bu ko defee ñi nga dañoo bañ tarixa xabi wala dañuy noonoo tarixa bi ñu ne ñu ne aha mm-hmm. dégg ngeen li ñuy wax ñu ngi nii lii la ñu nettali seen sëriñ seen sëriñ noonu naaw ci jaww ji seen sëriñ yu kenn xamul dëgg la wala koo xamante ne dafa nekk ci tarixa bi te yaqiinam dëgëragul ñi génne ko ci très facilement dëgg la donc loolu lu ñu war a xoolaat la te yaakaar naa mm-hmm. il ne pas encore trop tard di lee que le temps waaw beaucoup de temps a mm-hmm. passé mais il n'est pas trop tard ñu jéem a loolu Sénégal nag mm. wàllu diine comme ni nga koy yàgg di waxee daf fay ñàkk organisation de sorte que kenn ku nekk kilifa diine boppam la kenn ku nekk xalifa boppam la kenn ku nekk sëriñ yi boppam la <laughs> wallaay dëgg la gis nga Nigeria Nigéria c'est presque deux cent millions de personnes mm-hmm. jullit yi fa nekk waxuma la jullit ñi mais am na état ci Nigeria yoo xam ne seen population moo ëpp Sénégal mais malgré loolu malgré loolu Nigéria am nañ benn mufti boo xamante ne lu jóg ci wàllu diine moom bu waxee kuwaafe na wax yëpp moom la ñuy topp. dëgg la Sénégal loolu amu fi tey. kooku kooku sama sëriñ kooku sama waaw yaakaar naa xam nga Mawlana Cheikh Ibrahim Saleh. Cheikh Ibrahim Saleh kooku mooy sama sëriñ. te est-ce que xam nga ne li gën a yéeme li gën a yéeme mooy ko taalibe bàyyi la. bal bal dem na Tchad. di waxtaan bi mu paree benn waay jug laaj ko ne ko dégg nañ ñu ne yow léegi da ngay woote sa mbirul bopp da ngaa am sa faydu bopp da ngaa am sa nangam yow yaay xut bu jamono Chérif mm-hmm. Ibrahim Saleh daal di muñ ne ko man duuma sax taalibe Baye man taalibe Cheikhabul Fatihi la Cheikhabul Fatihi taalibe mm-hmm. Seydi Ali Cissé la Seydi Ali Cissé mooy taalibe Baye mooy taalibe Baye wallahi ndeysaan <laughs> macha allah entre parenthèse kooku ni mu toll ci xam-xam ak Il bi niñ ko mm. respecté mu plus de livres ah, Il a beaucoup Il ah, il a beaucoup produit azhar azhar mm. malgré lolu mm. il se dit il se considère comme troisième étape ci talibé bay Cheikh Abul Fatih Cheikh Fatih beaucoup Ali seyd Ali Mm-hmm. Mm-hmm. léegi nga mën a gis benn taalibe bàyyi boo xamante ne barki démb la jël askaru tarbiya xëy na jug léegi moom mooy xut bu zaman moom moo raw sax doomi moo raw mbooleem jamono ja xam nga tu yabaat dafa bëri ay façon euh, réewande la ah, bëri ay façon te yu mel noonu ci la mm-hmm. bokk maanaam koo xamante ne mënoo firi mënoo firi masala miiras buñ la joxoon masala léegi buñ la joxoon test ci njàpp laj ci nekk mënoo kaa tekki xëy na mënoo ko génnee dëgg la sa jàng sax feragoo yow feraguloo waaw feragoo ij wàllu wàllu maarifa bi ay séeru ngeen am yoo xamante ne yéen da ngay koy bind ci ay kaye bu ñu lakkoon kaye boobu dootoo mën a wax wallaay ñoo ko créé de te ñoo ko créé sax ba pare nga mën a taxaw ci loolu fëgg sa dañ ne yow yaay xut bu zaman loolu pour ci wàllu ci wàllu entre parenthèse bi ubbi léegi ci wàllu kër baay la te kenn ku mel ni Chérif Ibrahim Saleh nekk ci seen biir nga xamante ne tey jii moom mooy mufti Nigéria adduna bi yëpp mm-hmm. respecté ko ci xam moom mooy première borom xam-xamu xadis tey ci adduna bi Arabie Saoudite ñii dëgër bopp yëpp nangul nañ ko loolu dëgg la mu ànd ak modestie boobu nekk tijaan nekk taalibe tijaan léegi ñun Sénégal waroon nañu jël référence ci loolu ci wàllu diine Sénégal tey ji amul benn mufti boo xamante ne da koy joxoñ ne kii bu waxee ci diine mu coiffé wu ñëpp waaw dëgg la amu fi ñëpp kenn ku nekk il sa permet di wax ci diine xalaatam commission linéaire bi sax oustaz sax wallaay même bu weer feeñee sax dañ ciy wuute ñi am nañ seen commission bopp ñi am nañ seen commission bopp affaire yo xamantene ne finalement anarchie anarchie totale la jaxasoo bo xamantene ne. non anarchie te la tafarraqu la yàlla waxo ci akon c' est que ñëpp xablullahi tabaraka taala c' est que laa tafarraqu. ñu Sénégal bo booloowuñu. léegi. légui lolu ci niveau ci niveau diine bi de manière générale. bo ñëwé ci niveau tariqa bi. deug la mën nañu nangul kenn ku nekk mu am buntam am mashrabam qad alima kullu unaas mashrabam lolu la yàlla wax. bi leen banu israila fukki sew ndey ak ñaar ba pare ne xad alima kullu unaasin mashrabahum kon kenn ku nekk mën nga am sa mashrab waaye nag ci biir ci biir naanu waay yooyu noonu nañ xool naka la ñuy nosee mbir mi ba ñu xam hiérarchie yi ñuy amee ak tamit ñi nga xamante ne ñooy les voix autorisées pour ñu wax ak ñi nga xamante ne waru ñoo wax waaw surtout dégg naa dégg naa nga jël exemple ci yoonu murit gis nga tarixa murit exemple mm-hmm. la ci wàllu organisation mm-hmm. exemple la ci wàllu hiérarchie dëgg la benn dof buy génnee fële ak lu muy mënti wax du dofa dofa dof ba wax ne moom moo gën moom moo raw sëñ Muntaxa Mbàkke balaa muy commencé waxee dofam dina nangu ne sëñ Muntaxa mooy mooy sëñ Tuubaa ci kaw suuf doo ko wax waxee dof yi muy wax la buy wax tamit balaa muy wax xam dina nangu ne sëñ Muntaxa moom mooy sëñ Tuubaa ci kaw suuf mm-hmm. طريقه تيجان بي لولو امو في تي فوا بن واي بو ملني ال شيخ جوي فالي ني تاي جي واخما لا خليفه تيجاني في نيك اك سيرني في نيك صاح واي موم موي قطب الاكتاب الكبير موم مو راو كيب كين دو جيلي ديريك شيخ جان بو جاغو تي اي والله ني سال problème bi problème bi problème bi fofu la situé wu ci ñaka jangal nit ñi hmm. ñi xam lan moy tariqa bi ak hmm. japp tariqa ban sens la am hmm. bo déggé discours bi mi wax

boo demee benn preuve benn preuve boo demee boo demee asamaanu ñeenteel cuuraay buñ fay tu buñ fay taal cuuraay uudul axdar la tudd ban preuve moo koy prouvé hmm. wallaay wallaay de sax <laughs> maanaam ay gént ngay toog di ah. wax ni yoo xamante ne yaa amul benn preuve bu ko mën a prouvé amul dara luñ mën a teg ci loxo te ñoom ñi ngay wax ak noonu hmm. amul benn zawq bu am pour yëg ko ñu amuñu zawq ci yàlla dëgg la dañ lay xool seen di la xool hmm, yaakaar naa ne xalif généraux yi ak porte-parole hmm. xalif yi ñoom hmm. ñoo war ci problème bii oustaz Makhtar hmm. Sarr mu ci def liggéey bu rëy jazahullahu xayran te warta wéet waaye duwul duwul sax liggéeyu oustaz yi lii xalif généraux yi dëgg la effectivement dëgg la tariqa tijaaniya moo xam nga bokk ci kër mam Seydi Hadji Malick wala nga bokk ci kër maam wala nga bokk ci kër beneen boo fa wootee dara nañ la teg comme ni Papa As daan def gis nga jamono Papa As képp ku nekk di woote ci kër Baye daf lay woo teg la. Pape jàmbaar la dafa manqué dafa manqué waa Kër Baye. manqué ci Sénégal sax ngay wax ñu mel ni moom. parce que bu fi nekkoon ba léegi am na yenn bordel yoo xamante ne du fi am. dëgg dëgg la. donc képp ku fi woote lu mënti doon ñu woo la teg la. Mm-hmm. testé la ci loo nga xamante ne yoon boobu maanaam maqaama boobu nga woote wala mbir moom nga woote laaj na ko boo ci jàllee mm-hmm. bismillah falilahi alhamdu boo ci jàllu ñu tegal la sa place. dëgg la. loolu bu doon am benn benn ñaar ñu joxe ci exemple am na yoo xamante ne dootul jàllati. effectivement dëgg la waaye bu ñëpp noppee la nature a horreur du vide xalif généraux yi bu ñu noppee borom xam-xam yi nekk ci pays yooyu noppi euh, seen porte noppi kenn ku nekk di gis ne ah hmm. kii benn dof la kuy wax direct compte kenn ku nekk di gis hmm. ne am na ñeneen ona a d'autres affaire mais benn Masamba ak benn Mademba hmm. bi dugg ci YouTube quotidiennement wala muy déglu whatsapp quotidiennement day foog ni loolu mooy dëgg parce que yéen seen message ak ci aksi wut ci moom donc message yu el cheikh moom ak ci wala beneen waaye effectivement dafa yomb këf ko mm-hmm. dafa mm-hmm. yomb ko mm-hmm. te loolu bu amee loolu bu amee Sénégal dafay xaaj wahabist yi dañuy gën a dugg si di parce que dañ dañuy wax ne seen sëriñ yaa ngi ni noppi nañ ndax duñu inkar munkar الطريقه الثانيه امول بن طريقه بوكو جيتو تي انكار منكر اك داق ليپ لودو يالا ساخال يالا كيسه الله ما لا صح الله ما صح الطريقه بي بحتى بحتى باينس موغي وي اي ويام مونه فان قلت هل زل يريد نهج محمد اقول نعم يريد لي نيل صفائي فما الورد الا الذكر لله وحده تصلي على المختار خير ورائي فما فيه ذكر الشيخ او ذكر غيره فوردي لداء العبد عين دوائي waydakum laa tunkiru an jahalatin li baghin wa udwanin wa aynu jafaay mu ne boo waxee ndax wirde mhm. wirde yonentu bi sallallahu alayhi wasallam dama naan la aha kay wirde yonentu la te dafa jóg pour sellal jafe-jafe ak feebar yi ak gàkk-gàkk yi nga xamante ne moo nekk ci nit ki mu ne nag turu ci mhm. sëriñ bi amu ci turu keneen turu sëriñ bi amu ci yàlla kese moo ci nekk doo toog ba tudd yaa Cheikhu Tijaani yaa Cheikhu Tijaani sàkkantumaa ngay ñëw naan yaa xutbul abtaabil kabir lii lu ñu yóbbee lu mu ñuy yóbbee mooy finalement ñiy inkaar xutbaaniyatu dafa mel ni dañ leen jox mhm. raison parce que benn dox bu jóg naa oote kon bu boobaa dañuy joxoñ baaraam te man maa ngi dégg ay audio ci whatsapp bi fa muy yuy wër jamono yi rek yoo xamante ne dañ naan leen mhm. ahan diñ leen doon wax a ngi ay affaire xutba yi nit ñi ñoo ko benn système la pour mystifier pour pour mystifier nit ñi ànd ci ne leen ci loo xamante ne dara amu ci mhm. pour tiital leen ñu topp leen waaye loolu yëpp amul man dégg naa si benn. très bien alors que. mbir la moo xamante ne yàlla daf ko organiser ni mu organiser nubu wotu ni mu organiser mm-hmm. risalatoog wax yu waaye mm-hmm. nag dañoo dem ba ñi nga xamante ne dañ cee wata dugg dugg ci parce que ku mel ni Musaylamatul Kazzab jamono bi mu jógee di oote nubu wotu ne day créer mm-hmm. ay ay ay saaru waaw al fiilu mal fiilu lahu xaw ma lan <laughs> macha allah loolu bu prospéré woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam hmm. noppi ci dañuy dem ba foog ne kon kenn ku nekk mën naa ñekk nabi yu ku nekk mën naa kii mais yonent bi moo njëkk a jug ne ko Musaylamatul Kazzab takkee ko étiquette nga xamante ne ñu génn Kazzab boobu daf koy daf koy topp mais tey jii ñi que ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor maqaama yonent bi ci ñun muy suñu xulafaaw yi hmm. muy seen porte parole hmm. yi muy les voix autorisées est ce que taxaw nañ wax ñu mel ni ñoom El Cheikh ne ko da ngay waaw waaw man gisuma si kenn de. benn Makhtar Sarr maa ngi ci bëgg def sax. <coughs> sax liggéey ci wàllu boobu xam naa ne si waxtaan après ma ak yow parce que man bëgg naa si def benn liggéey ci wàllu boobu. incha allah mooy taxaw fële benn après bu ñu waxee ak nit ñi hmm. saaga leen ne leen yéen noppi leen ah, da ngeen di kii nangam ak nangam après finalement ils seront seuls dans le combat. ils seront affaiblis. Hmm. ñee ñi nga xamante ne bu teranga gi ñëwee ci ñoom lay jëm ñoom chaque jour ñu ngi noppi. Hmm. amna ci ñoo xamantene ci ñoom nak problème bi moy el el cheikh da fay wote li ñuy wote ci bëccëg bu guddé mu dem seen kër banqam leen enveloppe 500000 enveloppe 1 million bu ko defé enveloppe yoy el cheikh jox leen day tax duñ mëna a el cheikh el cheikh ci lim nekk wala ku melni el cheikh ci lam nekk effectivement effectivement deug la wala bu el cheikh amé programme am xamné ne bu demee dana fa wax njombe bala muy dem da dafay dem jox leen enveloppe bu duun bu ko defé ziaré gaay programme bi rek ziaré na leen ba pare hmm hmm deug la motax qualité serigne bi ñu wara am serigne bu am dévouement serigne bo xamantene yàlla kessé mom mo fess bëtam duul alalu àdduna xam nga Seydi Ahmad Sukay rek dañuy netali ci mom ben xista parce que dañuy wax ni dafa amone tasawuf ci jinne ak nit comme niko yàlla maye won ñi ñi xam effectivement légui mu nekkoon ab qadi moy juge te dañu wax ne cheikhou Tidiane dafa tere won talibé mi genre liggéey bi effectivement nit ñi commencé di ko jëw ne. Euh, Ahmad Sukay xaalis la bëgg nangam ak nangam il est corrompu. benn jour mu bàyyi ba nit ñi dajaloo ci saalam mu ekkati njegenaayam urus bi di bëlbëli di bëlbëli di bay waajal laal plafond wu mm-hmm. mu ne leen law arat na dunia la kaanet hakaza adduna bi buñ ko bëggoon a soppi mu mel nii nii lay mel pour wan leen adduna dugalut ko ci li def waaye yàlla kese moo dugal yàlla képp moo ñu ñor dëgg la. yàlla kese moo ko ci ñor Seydi Arabi Damrawi bi ñuy wax nga xamante ne il est mort très jeune Seydi hmm. Arabi Damrawi amoon na benn secret boo xamante ne bu bëggoon a génnee fi hmm. benn tondu jamaa léegi mën na koo génne. da koy génne wallaahi. ak maqaama boobu mu amoon ci yonent bi sallallahu alayhi ba nekkoon intermédiaire ak digganteem ak Cheikhu Tidiane. digganteem moom ak Cheikh Tidiane dëgg la. di ko gis combien de fois par jour. waaye terewul loolu yëpp dafa sacrifié woon boppam di noonu yi daan def ci moom ba mujj gi dañ ko mujj rey. te bañ koy rey moom xamoon na dañ ko dañ ko mujj assassiné. di ko rey sax xam na ko dana ko ndax ne ko yow faayil ibnu faayil yaa may rey. Mhm. wallaahi dëgg la léegi bu fekkoon suñ sëriñ si am nañ amaat nañ sëriñ su mel noonu ñu jël exemple ci suñ mhm. sëriñ yu récent yi ku mel ni maam Abdou Aziz Dabakh mhm. maa ngi déglu benn audiom am des fois buy Pape Alé di teg dafay wax ba mu yàgg mu naan li may wax nii kum neexul jëlal sa malet bi nga fi indi yóbbu. maanaam lépp loo ko mënti jox du tee mu wax la dëgg wax dëgg raar na fi discours boobu raar na fi trop waaw ku mel ni Papa As mm-hmm. nga xamante ne daf daan taxaw wax li muy wax ba pare nee la nag li may wax ni yaakaaruma ci dara lu du payab yàlla sama tool yi laa yaakaar ñoom ñoo may jox lu may dundee wallahi wallahi desaan ku mel ni Baye nga xamante ne amutoon compte bancaire lu mu am jox ko yàlla lu mu ñàkk laaj ko yàlla jumaam ji ba mu koy tabax nee na dërëmu taalibe yeeg seen fifteen la bëggoon ñu dajale ko ba bi mu génnee àdduna bàyyi ci boru banque boo xamante ne bàyyi na ay bor ay bor te bu bëggoon na ay bu bëggoon na dajale ay seetu dajale ko dëgg la wallaahi yàlla rek nekkoon yitteem nga xamante ne ñi gënoon na mbëru ci àdduna ci jamono jooju dafay taxaw di bind di leen wax di leen wax dëgg di leen di leen ñaan yàlla mm-hmm. mais tey jii oustaz boo fi fëgg mu ne la ah ñun dañoo bëgg ne dañoo bëgg a dund ci jàmm bàyyi ma rek man moom bëgguma sama der man bëgguma kuma singile benn benn saaga bu ma kenn saaga benn Cheikh boo ah. fëgg mu ne la ah bu moo waxee nangam gars yi duñ ma jox passeport diplomatique wala bu jeexee duñ ko renouveler moom bàyyil noonu yu mel noonu bu amee yu mel noonu bu amee dañuy dellu ci jamono ci jamono Yazid ibnu Muawiya d'ailleurs ñu ngi ci ñu ngi ci muha ñu ngi ci muharam ñu ngi jëm ci ashura mhm. mu fàttali révolution au Seydina Hussein mm-hmm. essence révolution boobu mooy mm-hmm. àdduna lu mu yàqu-yàqu yow boo baaxee bul bokk ci yàqu boobu bul wax xaaral man tamit ma mm-hmm. ma def baax garanti taxawal ko ku même bu la vie dëgg la. Euh, jeunesse bi tarixa tijaan tarixa la bu bëri ay jeunes. Mhm. gis nga sëñ gis nga exemple bi mu jël. initier mhm. projet université Touba de trentaine de mhm. milliards. bu ko Tiwaawoon defoon. Medina Baye def ko. Pire euh, euh, def ko. ñeneen ak ñeneen def ko. xale yi dañ xale yi danañ leen canaliser jàngal leen xam-xam bu leer. kenn doo leer nañ wallahi dëgg la. suñ bopp leen fëkkati di ci loo xamante ne neexul yàlla ak wala finalement rek ci moom moo ci jugee hmm. ndax gis nga El Cheikh mi il n'est la commencement et il est le benn cadet la ci problème bi nga xamante ne am na. lu ko gën a grave a ñëw si métti ko ñu ko gën a mais sànq sànq rek man maa ngi déglu benn vidéo déjà bind naa ci benn post maa ngi déglu benn vidéo benn taalibi benn muqadam boo xam ne ci Baye Niass la jokk. mais boo dégloo vidéo bi ba mu jeex li muy wax mooy Baye Niass jeexal na joratul dara mm. mbir yëpp toxu na ci sëriñam boobu noonu sëriñam bi fi ñu toll nii moom mooy nangam mooy nangam maanaam kon moom il n'était rien Baye ay ay la fi indi indi wu xam yàlla sëriñam bi moom mooy xamle yàlla moom nangam kooku kooku de xam naa kan la très bien donc yu mel noonu ah, saay-saay xam naa kan la kooku du saay-saay <laughs> yu mel noonu yu mel noonu ñi wax ñoom te nun nga koy fekkee ci ñeneen ak ñeneen tamit ñi wax lu mel noonu dafa am ñu ko ñemee mm-hmm. feeñal am ñu koy nëbb rek mm-hmm. waaye mbir mi c'est plus large que El Cheikh El Cheikh profit la bëgg mm-hmm. dund la bëgg comme ni nga ko junjee ci tubaab boobu wax ne moom bu doon investir Sénégal il aurait choisi d'être euh, un chef religieux wala un marabout wallaay wallaay mais da ngay xool léegi même ci jeunesse bi nga xamante ne jànguñu ba jàng jotee jànguñu métier ba jàng métier jotee léegi liggéey bu gën a yomb bu ñu def mooy Serigne tariyaax pour sa ben pour sa benn subu fii sa ñaari butéel fële dem sol ngan di dara jees neer ut benn programme télé rek nam damay faj nangam damay faj nangam bu ko defé après commencer gagner tout jël sa ben appartement nak deug société bu démé ba tollu fa bàyyi ñes daf ñoo waxoon ne inna mustaqbala kull kulla watanin innama yatawaqqafu ala shubbaanihi la ala kulli shubbaan bal ala shubbaanin mustaqafun zawu axlaaqin hamida wallahi wallahi cultivé d'abord dëgg la avenir réew mu nekk

mais mu ngi avancé ah. El Cheikh mi ñuy def ay tournée nationale te nee na bu fa jógee ay tournée internationale lay def léegi da ngay conférence am Thiès conférence de Liberté 6 Dakar fii conférence nangam conférence nangam te ñu ngi koy gis ala masma'in wa mar'an min an-nas ñu ngi koy seetaan ci loolu wallaahi dañuy xoole deful dara kenn deful dara kenn waxul dañuy xoole nag ba daay ba ba ba safara si lakk daay bi ñu doog a commencé mm-hmm. di jël ay mesures et boobaa dafay fekk mu trop tard Ben, depuis depuis naa muy am ay nit ñukoy top ci lañu recommencer di ki té le plus dangereux mm-hmm. le plus dangereux mangi mm-hmm. partager ben vidéo yakarna c'était avant-hier wala hier légui mom mm-hmm. mu ngi former ay jeunes yo xamante dañuy def armatio pour pour pour sa sécurité personnelle bilis waaw bilisam bi effectivement dëgg naa ko ñoo ku wax ci mom sax après dañ lay menacer bu jaree ñu dem fekk la fofu def la liñ lay def wala yobul la ci àll liquide la ils pourront le faire effectivement dëgg la loolu ça menace sérieusement la sécurité du Sénégal et la sécurité des gens de manière générale. wallaahi sëñ ah. Fallou sëñ Fallou nag dégg naa danaan wax ne ay lum la sori sori ñaanal yàlla mucc ci mm-hmm. bul wax ne sori na ma te du ma laal. dëgg dëgg la dëgg la. tey moom lum la jege jege ñaanal yàlla bokku ca. bul wax ne jege na ma mm-hmm. kon problème bi yow excès gut ci yow commencé gut a fëkk say taalibe wala mu ngi wax ci sa sëriñ lu baax parce que il a une méthode très dangereuse. méthode boo xamante ne ku amul yeewu. dafa am Sénégalais yi. très bien dafa am dafa yeewu ah. dafa yeewu. mooy mooy ku nekk dafay jël sa sëriñ ràngal ko booleem garaatu àdduna bi. Mhm. bu ko defee yow da koy prêter oreille ne ah kii de mu ngi wax sama sëriñ lu baax. effectivement effectivement. malheureusement comme mhm. Sénégal comme ni ma ko commencé sànq jàng mi xóotu fi. ay xib ay xibru ulama lañ am waaye ay ulama dëgg la jamono ji laay wax ay ah, bëriwu fi dafa jafe wallaay dafa tumuranke donc benn Cheikh Baye boo jëlee Cheikh Mahi Cissé taggal ko ko comme Cheikh Mahi mooy sëriñam nangam nangam daf naan ah man de loo waxati rek nangu naa parce que taggal nga ma sama sëriñ nangu naa dëgg la alors que du am ay critique ci tagg yooyu ngay tagg sëriñam peut-être kalimatu mm-hmm. xaqi urida biha baatil comme ni ko imam Ali waxee woon Seydina Ali dafa mhm. dégg xawaari ji di wax ne laa xukma illa lillah atte moom yàlla rek ko moom ne leen kalimatu xaqin urida biha baatil li ngeen di wax ni dëgg la de waaye neen ngeen ci dugg mhm, mhm. kon el cheikh li ngay wax nii ci sëriñ si dëgg la de waaye yow fenkat ga dëgg la <laughs> yonent bi jàngal ñu loolu ci benn xadis bu wér ñëw ne ko man démb damaa gis diw mu jàngal ma benn secret ci ayatul kursi yu nanga ak nangam yonent bi ne ko ndax xam nga kookan la mu ne ko nee na moom moom la seytaane mu ne ko laqad sadaqaka wa huwa kazuba lim la wax dëgg la malgré que moom fenkat la moom fenkat la dëgg la dëgg la kon bul dégg benn masamba toog ne la sa sëriñ moom moo nekkoon xutbu ci jamonoom sa sëriñ moo nekkoon nangam ci mm. jamonoom donc nga bëgg mm. jël waxam lépp jëlal xaayida boobu na li mutu xaqin lay def naa baatil am na mm. même dajjaal da dajjaal bu ñëwee du wax nit ñi ne man ku bon laa daf leen di wax ne man maay seen borom. du ko wax du ko wax ëpp leen ba dugg aljanna. dëgg la. kon chaque fois nit kuy réeral nit ñi bu ñëwee bu leen xaar ci moom mu wax leen ne moom daf leen di réeral mais xaar leen. man damaa réer du ko wax ko wax. firaaw na ci firaaw la waaye naa rabbul ala wallahi man naay seen doom bi maa leen di defal teranga maa leen di nangam maa leen di nangam dëgg la dëgg la donc ñu tamit dafay am ci wàllu baati ci wàllu sëriñ si te effectivement ñi am ñi am tamit beneen phénomène boo xamante ne jeune jeune Séné jeune Sénégal wala jeunesse sénégalaise war nañ ci bàyyi xel mooy wàllu xam yàlla ak wàllu yegg ci yàlla taxul nga nekk dof taxul nga nekk dof taxul ngay wax ay wax yu dof c'est vrai man taalibe Baye laa damaa jàpp ne Baye moo gën a xam mm. yàlla ci jamono. Mm-hmm. waaye tax waaye taxutoon mu nekk dof Baye moo fi gënoon a civilisé. Mm-hmm. Baye Niass moo fi gënoon a nite saa yooyu déglu waxam waxi nit rek ngay dégg. dëgg la amul benn waxtaanu Baye wala benn bind Baye booy gis boo xamante ne daf naan daf naan lii génn na cadre nite. Mm-hmm. et léegi pourquoi ñi bëgg a jël xam yàlla boobu ak yegg ci yàlla ak wax ci maarifa boobu noonu def ko yëfi dof yoo xamante ne pour nga def ko wala pour nga wax. impressionné pour impressionner. pour impressionner nit yi rek la. pour impressionner guux lekk seen xaalis. alors que yàlla waxoon ci alxuraan ne. sa wa iza sa'alaka ibaadi anni fa inni qarib buñ la laajee ne ma jege la mbir mi soriwul lu jege la. lu jege la dëgg la. soxlawul ngay nettali ay ji bu daawata daayi sa daani soo daani maa ngi dégg benn kilifa buy nettali benn xiste boo xam ne relaté nga ko sànq mais malheureusement mm-hmm. man ni ma ko déggee ni mu ko waxee reetaan daf maa xaw a jàpp parce que daf ne mm-hmm. Seydi Abdul Xaadir mm-hmm. Jilaani dafa demoon asamaanu ñeenteel daal daal di fa dégg Iblis mu sol jëmmi leer mu daal di ko ne ko nangam après mu relaté la euh, même histoire mais yow ni ni nga ko relaté nii te Imam Hassan relaté ko la même manière mooy Seydi Abdul Xaadir dafa toogoon di wér de bés Mm-hmm. wax ku ne ko nanga xam nga loolu moo gën a yenu maanaa wallaahi dëgg que di taxaw naan nit ñi Seydou Abdou Khadre danaan dem asamaanu ñeenteel naaw ci kaw asamaan si waaw wallaahi xam nga loolu Cheikh Baye mm-hmm. loolu dafa bi nga xam ne mm-hmm. nàmpaluñu ko ci xam-xam bi ko nàmpul ci xam dafa jàpp ni su waxee képp sëriñam lu mu def rek pour moom màggalul sëriñam il faut mu sos ci pour wane sëriñam dafa garaaw absolument sëñ bi wax dëgg yàlla garaawaayam soxloolu nga ko koy sosal dëgg du dëgg du dëgg du gàtt. li Cheikh Ibrahima doon xam dëgg du gàtt waxal dëgg te yem ci. gis nga ci gars yi créer histoire. ils veulent créer des mythes et des légendes autour des marabouts te marabout yi bu ñu nekkee ay mythes rek ñu wartu leen roy ndax ñu ko du leen topp yu mën a mel ni ñoom. Mhm. gis nga li benn li benn sëriñ doon wax yaakaar naa bàyyi ñu sax wax na lu mel noonu mooy karaama bi gën a rëy mooy istiqaama. njub mhm. wallaahi dëgg la. karama bi gëna reuy moy nga fekk nit ko xamantene xolam yàlla nekk ci won nga fexe ba jubal ko def ci yàlla def ci yàlla deug la tax yoonent bi waxon sayidna ali bi ngi koy yebal khaybar ne ko la an yahdi allah bika rajulan wahidan khaybun lakum min ad-dunya wa ma fiha wala khaybun lakum min xumru niam yàlla jubalee ci sa loxo kenn nit mu jub top yàlla mo gën nga am addunaak la ci biir addunaak la ci biir dëgg la waaye fi mu toll nii bëgg jël mbir mi def ko ay naaw ci jaww ji nekk asamaanu juróom-ñaareel yàlla toog ci suuf nga toog ci kaw feronkulaayu sol ay dara ci kanamu malaayka yi di la sujjoodal mbir mi du loolu soxla euh, loolu Baay Ñas Baay Ñas dafa wax yàlla ne ko fal tajaalan xibsa kitaabika alkarimi karamati ila liqaayika alazim dëgg la defal mokkal alquran ak wattu alquran mu nekk sama karama parce que mbooleem mhm. xam-xamu xam àdduna ak àllaaxira mu ci biir alquran. mu ci alquran wallaahi dëgg la xam nga mënoon na ko ñaan ne ko def ma ma am ay laaf dinaaw ci kaw jaw ji wala def ma may fanaane aras bi ñëw wala nanga ma nanga. kon ñu bàyyi ko topp picc yi ndax picc yaa ko ëpp laaf. c'est ça <laughs> billahi dafa am benn dafa am benn waay dafa am benn waay buy wax moom xutbu zaman la euh, mm. moom mooy xutbaaniitu sax ci jamono ji nee na. nee na mm. bàyyi xutbaaniitu ci boobu. waaw moom mooy xutbaaniitu ci boobu <laughs> te nee nee na bàyyi junj na ko bañ ko laajee fan la la bàyyi junj mu ne abdan musawwada mm-hmm. bàyyi def ne jàmm bu ñuulal bi mm-hmm. xam bu dee jàmm ñuul la ñu gën a ñuul ñu ko gën a ñoo fi nekk de. ñu ko gën la fi ne wallaahi bu dee jàmm yi ñoo gën a ñuul téeméeri ju neen kon xanaa ñoom nekk jamono ju nekk. wallaahi am na unku am ñuul yu fi nekk yu xam. très bien. am na ñu génn ñu si ubboodi billaay wallaay am na ñu ko gën a ñuul téeméeri junni ñoom <laughs> mais mais taxul taxul malgré loolu am na ay nit ñu koy topp ci loolu di ko gëm ci loolu hmm. dëgg la et pourtant ñoom dañoo am sëriñ boo xamante ne muy bàyyi moom moo la wax ci bande hmm. ngay dégg gàmm 68 mu ne la ku yàlla dimbale ba jox la diine jëggën ci diine yi yonentu di gën ci yonent yi téere di gën ci téere yi waratoo def sa bopp dof boo xam ne ku jot tum ne nax ab dof wallaahi léegi yow gàmm gàmm gu ma neex la ci gàmmu mi. moo gën a neex ci gàmmu gaay yi. wallaay wallaay wallaay te comme par miracle. moo gën a leer moo gën a leer ci enregistrement ci mboolem gàmmu gaay yi. waaw enregistrement yi moo ci gën dëgg la. te yaa ngi dégg ci gàmmu boobu. yaa ngi hmm. dégg ci gàmmu boobu muy wax ne. diine hmm. yàlla ji duwul juddu. Hmm. ndax nettali na benn shérif bu nekkoon Xuraasaan ak benn jàmm. ay tuñam ñuul. dëgg la. jaam bi di topp yàlla di jaamu yàlla ba am cër ci yàlla shérif bi di mooy yàlla cag jur naan sànq manti wallaay wallaay donc boo gisee loolu di nga xam ne mbir yi dëgg la comme ni nga ko junjee nekkul ci sant parce que bu doon ci mm-hmm. sant la konoon Baye Niass du doonu Cheikhu mm-hmm. Tidiane konoon sëñ Babacar Sy ak sëñ Haj Malick duñ doonu Cheikhu Tidiane konoon du am limaam bal Sëriñ Tuubaa biñ ko ne toogal maqaama bi sa papa bi sa way wayjur nekkoon ngay jege buur yi daf na mm. leen xaalu li kan daal di ca mm. bind xasidaam boobu xasidaam bu siiw boobu mm. ba di leen wax ne man amul kenn ci dégg sama mébét kun rabbul arsh mm-hmm. daal di bàyyi lépp topp yoonu yàlla ba am cër ñu am ci yàlla léegi taalibe yi taalibe yi taalibe yi nga xamante ne dañoo gëm kenn ci ñooñu soit nga gëm Serigne Touba mm-hmm. xaar xaaral commencé ci moom bu dee Serigne Touba nga gëm jëlal exemple ku mm-hmm. mel ni Serigne Saliou nga xam ne moom mooy mm-hmm. doomam ci mujj a jugee Serigne Saliou bu soxla woon cinquante milliards mën na ko am ci moyen de six mois cinquante milliards bu ko soxla mën na ko am ci moyen de six mois effectivement mais malgré in ci mooy d'une semaine mm. mais malgré loolu mm. malgré il a mm. préféré di dund ci ay néegu sàkket di tëdd ci benn matelas boo xamante ne bu ci bérongoo sax benn wetam laal suuf dévouement boobu ci àdduna ak dëddu àdduna boobu lan la lay fàttali sufiyanke yu njëkk ya nga xamante ne dañ daan fase seen àll bi zuudu mm-hmm. dëgg imaamul Ghazali dafay wax ne qad kuntu abdan walhawa maliki fa sirtu xuran walhawa xaadimi mm-hmm. wa uttu bil waxdati mustanisa min shari awlaadi bani mm-hmm. aadami mm-hmm. bi ma nekkee jaam sama bànneexu bakkan moo nekkoon sama borom waaye léegi gore man maay sama man maay sama nguuru maay sangam muy sama jaam waaw man maay sangam nga ñëw ci ku mel ni sëñ Muntaxa mi fi nekk léegi yàlla na fi yàgg tewee xoolal xoolal masaalikul jinaan bii tabax Mm-hmm. sëñ Muntaxa amul kër gu mel noonu. Mm-hmm. waaye consacré na effort am yëpp pour defal yàlla lu mel noonu. Mm-hmm. dëgg la. te pourtant doo ko dégg mu wax lu dul jaamu leen yàlla dëggay jaamu leen jàng leen liggéey nga ñëw nga ñëw fu mel ni Tiwaawan jëlal exemple maam Abdou Dabakh. léeg-léeg boo ko gisaan yére yi muy sol ñëw ñu ko wër ñoo koy gën a rafet la ay yére dëgg la mais waxu dëgg fu mu ko fekk fa la koy bàyyi parce que daf koy wax wallaahi dëgg la te kenn kenn amul sikk ne xalifa cheikhu tidiane la woon ci xalifa cheikhu tidiane yi gën a màgg xaqan wallahi xaqan nga jël nga jël nga jël ku mel ni sëñ Abdou Aziz Sy junior nekkoon benn régulateur boo xamante ne li mu li mu hmm. jubale ci ay nit li mu defar nekkoon benn médiateur chaque hmm. jour lu ñuy digal nit ñi mooy fexe ba jàmmoo hmm. ga ñëw nga ñëw ku mel ni kër bàyyi xoolal bàyyi jumaa jim tabaxal yàlla xoolal néeg ba mu dëkkoon ba léegi néeg banque ay tiwi la ci nekk li mu banque banque wóom bi wallaahi desar xoolal li mu am ci àdduna samedi passé rek la fi benn waay ñëw bu tudd Cheikh Tahiru Bawci kenn la ci taalibe Baay yi nekk Nigéria di dund actuellement wallaay woo wootee tey li koy topp ci ay nit lu mu dee dee mën na. taalibe bi yëpp waa Sénégal. waaw lu mu dee dee mën na yëkkati trente de personnes. dëgg la Cheikh Bouchi ay taalibe bi ñoo population Sénégal. waaw. waaw bu wootee bu wootee lu mu dee dee trente million de personnes mën na leen a yëkkati. Mhm. presque presque deux tiers ñu topp bàyyi ci Nigéria ay taalibeem. dëgg la. depuis soixante dix ans mu ngi firi alxuraan kenn mus koo gàgganti. dëgg depuis 70 ans mo ngi firi alcorane te bés te firi alcorane téye téere wala mu téye kaamil dafay toog téye ku gisam ñu di ko xëy ci aaya bi dina ko ko indi Cheikh tahir bo ci mom liko yàlla may ci njaboot liko yàlla may ci xam-xam liko yàlla may ci barke yëpp ba léegi mu ngi sóobu ci yoon do ko gis ba xeeb tariqa tidiane wala nga gis ko ba xeeb faydu bay bi nga xamantene ci lay at dëgg la deug la deug la sànq junj naa fi Chérif Ibrahima Saleh mhm. ak ñu mel noonu ñu noonu ñu bëree bëri mhm. waaye léegi buñ demee ba jël wàllu cëriñ def ko mu nekk ku la ëpp ay milliards ku la ëpp ay 4x4 bi buy dem mhm. ñaata oto ko wër ñaata taalibi naawam matérialisé matérialisé sëriñ si këram ñaata xar la ñuy rey par jour ñaata ginaar lay reeree finalement sëriñ bi que dina am jotu toog toog ci sa jaara jaamu yàlla est-ce que dina am jotu téye téere jàng. ndekee mënul jaamu yàlla <laughs> yàlla musul bi yoraale téléphone doxaan jabaru jàmbur yi. waaw ku mel ni El Cheikh. nga xam ne <laughs> maam El Hadj maam El Hadj Abdoulaye. maam El Hadj Abdoulaye. Hmm. nettali nañ ne ne ba xataa ñaari saar yi mu daan jullee eet muy sabbi isma rabbika ak wa shamsi. da daan xëy nafar ko hmm. balaa muy dem ci julleekaay ba. nafar ko la il était méthodique. Mm-hmm. loolu loolu lu mu lay firndeel imam Hassan bu waxaan loolu ba pare daf ciy teg ne kon dañoo war a jàng ngir chaque jour ñuy wax nit ñi xam-xam. dëgg la. Mm-hmm. ndax ci loolu lañ mën a jëriñoo. Mm-hmm. Baye Niass bi jamono Nixon anglais yi demee ci weer américains yi demee ci weer wi. borom xam-xam yu bari taxaw di ko weddi ne loolu mënta nekk di ci def ay xutba Baye dafa ah. bind lettre di ko félicité. am yasiru laa ila shamsu laa ila qamar. wallaay kazabu waftaru yow <laughs> dañoo réer rek. waaw ah. Baye Baye dafa gën tamit di ko féliciter ba pare xamal ko ne ko pouvoir doomu aadama ak puissance am war na dépasser fii. dëgg la dëgg la. léegi nag ban doomi aadama en avance est-ce que doomi aadama buy toog ni El mu di ko nax di dugal ci ay xuraafaat la ban doomi aadama mooy hmm. yegg foofu est que doomi aadama boo xamante ne moom chaque jour boo ko gisee mu ngi diw mu ngi bu jamono ji wala diw mooy borom jamono hmm. loolu rek ci la hmm. préoccupé yëpp jéemut a xool moom ci boppam naka lay def ba nekk borom jamono. moom mooy kan waaw te moom mooy kan sax ak fi mu war a dem lan mooy ambition. ibnu arabi al xaatimi mooy hadafam ci tarixa bi mu jël. ibnu arabi al xaatimi daf lay wax ne anta la alamul akbar yow doomi aadama bi yow alamul akbar. wallahi dëgg la. dawaa'uka dawaa'uka minka wala taarifu wa daa'uka minka wala tashuru sa feebar bi lay bi lay gaar ci yow la jugee te xamoo ko waaye sa garab garab bi lay faj mu ngi ci yow te yëgoo ko. donc mm-hmm. doomu aadama boobu noonu bu utiliser sens bi ko yàlla may utiliser pouvoir bi ko yàlla may mm-hmm. mun na yegg fu nekk mm-hmm. waaye nag dara jomb ko bu ko limiter rek ci ay dof ak topp ay dof chaque jour moom ci suuf lay nekk wallaay desal sëy Seydina Cheikh tariqam bi dafa indi te képp ku wax yoon tariqa boo ko waxee mooy yoon et chaque voie chaque voie doit mener quelque part ak aaw fenn dëgg la léegi ndax yow sa tarixa bi yëpp da nga koo bëgg a limité ci laazim suba laazim ngoon zikar juma wasifa timis ak bu dee ñuy wasifa suba la wasifa suba jeex la est-ce que sa tarixa bi yëpp da nga koo bëgg a limité ci lal malaan ak nangam ak nangam jeex na dëgg la loolu boo ko defee xëy na di nga am yoolu tur yàlla yi nga doon zikar ak salaatu fati yi nga doon def di nga ci am yool mais tur bi bi tarixa bi indi doo ko am. waaw dëgg wallaahi doo ko am. parce que ta tariqa bi fi muy jëmee nit ki mooy daf koo bëgg ne ko xaa anta wa rabbuka yaa ngi sa borom a ngi. dëgg la loolu mooy mission. loolu bi mais malheureusement nit ñi nañ mission yooyu jox nañ seen bopp ay hmm. nit ñoo xamante ne ñu ngi leen di mystifier ñu ngi leen di tourner barki démb dama ko doon wax benn waay ma ko gis nga wootekat yi nekk fii ay ñoom El Cheikh a ay Massamba ak Mademba yi may dégg. Hmm. man mii rek bu ma neexoon ma taxaw fii woote te boobaa maa leen di ëpp mbooloo parce yaay yaa ngi gën a jàng yow soo woote woon normalement ñëpp dañuy war a noppi ndax yaa ngi a jàng ëpp leen xam-xam. xam nga xamul dara rek ngay woote rek man moom jaaxal na ma nag. et eh, malheureusement xam nga dara dara jeex. Sénégal moo neex sëñ sëñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum yal na yàlla yokk leeram da daan wax ne Sénégal suuf si nangu hmm. woote lu fi nit ji mu sax. dëgg la la. tey jii boo fi toogoon woote boo fi toogoon woote ne yow ab yonentu te léegi am ñu commencé yonentu yàlla Cheikh Omar man sax damay commencé sax far naa foog moo woote temps yi foog moo woote dara waaye <laughs> woote. wooteel ah, wooteel gis naa woote bi am na solo am na solo. <laughs> man maay nekk sa premier taalibe. <laughs> Eh, macha allah. parenthèse rek pour tëj ndax euh, mu ngi bëgg a gudd te daanaka wax ji amul solo. Euh, mm-hmm. ci wàllu dajjaal ak ci wàllu mahdi mm-hmm. ak ci wàllu yaajuje wa maajuje yi nga xamante ne ci la ñuy jaaree di nax ay di woote ak mhm. seeni profit bopp mhm. gis nga Mahdi yu sujet la bu mhm. sensible bien vrai que dëgg la euh, boroom xam-xam yu bëri dañ koy xool de manière littérale di rek ne xadis yi wax nañ nangam xadis yi wax nañ nangam man dama ci am benn gis-gis benn vision plus large que sax une vision un peu critique des textes boo xoolee textes yi wax ne Mahdi yu turam sama tur lay jël turam nangam ak nangam bon à ma conviction personnelle, les mm-hmm. textes ont été créés de toutes pièces. Mm-hmm. ci jamono mm-hmm. le abbasid al mahdi qui nga Haroun le papa Haroun al Hadi la Papa certains pour le plaire doon ko créer xadis yooyu ba doon ko. inventé des xadis. inventé ko xadis yooyu noonu. ba ba moom ci boppam. surnom bi ñu ko joxoon mooy almahdi. yaakaar naa c' est le troisième xalif des Abbasides bu ma juumul. moom mooy en tout cas le père le père de Harouna Rachid ak Aaron ñu bëri xam nañ ko. léegi xadis yu mel noonu dafa bëri. y a des xadis qui ont été créés ci jamono Banu Umayya les Omeyyades. Mm-hmm. Il y a des hadiths qui été mm-hmm. créés ci jamono abbasside. Mm-hmm. abbasside yi. gis nga tous les hadiths qui disent que lii nag moom c'est ma vision personnelle mën naa am ma juum ci ma ci juumee yàlla na ma yàlla jéggal ma ñàkk xam la. mais tous les hadiths qui disent que yawmal qiyaam xut euh, Damas lay amee wala Jérusalem lay amee wala Mahdi yu Quds lay wàcc wala Damas. ont été fabriqués de toutes pièces ci jamono. moo créé wallahi ñoo ñoo bokk ñoo bokk gëm-gëm ak dañ ko créé pour gis pour valoriser ah. pour valoriser Cham parce que comme xilaafa comme xilaafa gi dellu woon na foofu ndax xilaafa hmm. l'islam dafa passé ci ay étapes premier bi ba mu nekkee Médine hmm. jamono imaam Ali mu fa dem Kufa mooy Irak hmm. ginnaaw ga mu Cham léegi diggante boobu créé nañ fa ay mbir yu bëree bëree bëri wax ne ay abdal yu bëri Cham lañ nekk wala mm-hmm. nangam bu bu fitna yi jugee dem leen ci benn dëkk bu tudd nangam dëkk boobu mu ngi Cham actuellement foofu le palais Mohamed bi nekk sax d'ailleurs mm-hmm. euh, le palais vert bi ñuy wax ni mm-hmm. euh, waaw dajjal wala Mahdi Mahdi yu Cham lay wàcce usurpation dëgg la usurpation faux usage faux très bien jullit ñi jullit ñi endoctriné nañ leen ci loolu te feesal na téere yi et malheureusement malheureusement verre bi toj na ba pare defaraat ko yombul. du yomb. verre bu toj la defaraat ko yombul. ñaareel déggee passé nga wax ko. Mm-hmm. Ah. li nga xam damay gis ñu bëri ñi nga xam ne pour ñoom Buxaari. Mm-hmm. pour ñoom téere boobu ay saxiix kese fa nekk. te ñoom mm-hmm. pas compris. la waaw ah, ba leen nag tey da nga ba ko tuddee dama dama dama sama xol dafa sedd alhamdulilah. ndeysaan waaw ah, macha allah. mais xam nga euh, problème yooyu. dafa dugal ay gëm-gëm ci pas-pasu nit hmm. gëm-gëm yoo xamante ne jullit bi war na ko revoir par exemple hmm. alxuraan ba alxuraan jeex alxuraan ba alxuraan jeex lii dama koy joxe comme hmm. piste de réflexion turu dajjal figuré wu ci dëgg la et pourtant ak importance bi ñu ko jox ci suñu gëm-gëm ba def ko mu nekk aaya ci aayatu yowmal qiyaam est-ce que alxuraan doon na noppi wala mu fàtte wala mu gëmm ci lu mel noonu. effectivement. Mm-hmm. alors que yaa juuja woo maa juuja alxuraan daf leen a cité nommément. tudd dëgg la. ça doit nous pousser à une réflexion plus di lire texte yi mm-hmm. ne mu ngi ci wala mu ngi ci Muslim wala mu ngi ci Abu Dawuda wala mu ngi ci nangam. loo loo xalaat ci saay-saay yooyu tamit cu cuune yooyu ne innal yaajuuja wa maajuuja ne yàlla mufsidaani moo nekkoon yoon. erreur grammaire la yàlla dafa def faute kon lii soit yàllaa def faute wala ay nit ci yokk waaw xam nga dañoo xamul dañoo xamul langue arabe parce que langue arabe dina <laughs> indi dina indi uh-huh. ñaar wala dina indi sax benn ba pare jublu ci jamu def ko mufrat la mu def ko mufrat par exemple euh, dëgg la léegi dina tudd euh, allazina laa ilaaha illallaah aaya bee di wax ne xaalu hasbunallaahu wa ni'mal wakiil allazina qaala lahumu a inna nnaasa qad jamau lakum faxshaw waaw fazaadahum imaanan wa qaalu xasbuna allah wa ni'mal pourtant kenn la woon alladina qaala lahum naas inna naasa kenn la woon hmm. donc hmm. Euh, man kaana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikaala xanaa kon jibril ak mikaayil hmm. bokkuñ ci malaayika yi yaa ay yaa ayyuhan nabiyyu ittaqillaha waaye jubluwu ci yonent bi jullit ñi la ci jublu waaye pourtant jë damiru kenn la il la utilisé wallaay yaa ayyuhal lazina amanu laa tarfaw aswaatakum fawqa sawti nabi ci Seydina Abubakar Seydina Omar la wàccoon mais pourtant damiru jamo mm-hmm. lañ ko def donc ñooñu ñàkk a xam arab yaa jujo maa jujo bàyyi ñes bàyyi ñes daf ko fil fil éloquent mm-hmm. mooy yaa juja charqiyun wa maa juja garbiyun mu ne yaa juja mooy occident mm-hmm. maa juja euh, mooy euh, kii maanaam chinois yi ak occidentaux yi seen nopp yi ñuy wax naan dañuy tëral seen nopp yi nangam ak nangam yan nopp moo gën a. nopp éléphant yeeg affaire yi nopp éléphant yeeg affaire yi. waaw mais yan nopp yan yan nopp moo gën a rëy lu mel ni CIA ya, ak NASA ak seen kii service de kii yi ñu am seen satellite yi ñu am. nga xam ne luy nit def ci àdduna bi ñu ngi koy dégg fi mu toll ni. Mm-hmm. Mm-hmm. seen service de renseignement yu sophistiqué ay Mossad ak yooyu yan nopp moo gën a rëy loolu. mais mm-hmm. yàlla yàlla des fois il parle de il parle de manière parabolique. bu fekkee nit très parabolique sax mënut a décortiquer signe yadribu llahu la am saala am saala li naas gis nga alxuraan yëpp nag ay léeb la inna allaha inna allaha la yastaxyi an yadriba masalan ma baudatan fa ma fawqaha yàlla du yaalamuuna na wala yàlla yàlla rusul sax joxe exemple ci yoox benn waaw ma continuer ci li ma doon wax noonu ci texte bi maanaam jël sens littéralu texte boobu nekk kon mahdi yu feeñul mm. Damas wala fekk feeñul euh, baytu maqadis duñ ko gëm loolu c'est faux mm. il faut ñu am fu ñu mm. am des œils ci xadis yooyu noonu xadis la yoo xamante ne moo été créé ci temps Muawiya et majal xadis yi ñuy wax ne nag moom yamliku yamliku la arab dafay nguuru arab dafay dellusaat ci li ma la wax léegi mooy papaay Haaruna Rachid bi Muhammadul Mahdi moom dafa nekkoon buur moo tax mm-hmm. te moom jamono jooju moo nekkoon buuru arab bal moom lañ daan wax xalifatul muslim léegi nag daal di créé xadis yu mel noonu ne ay ceeb dafay nekk buuru arab yi bu ñëwee dafay nguuru il sera invaincu kenn du ko vaincre nangam ak nangam patati patata mm-hmm. et après nag avec le temps ça entré ci xolu ci xolu jullit ñi bañ def mm-hmm. ñi ngi xaar fi mu toll nii benn waay boo xamante ne dafay wootee nekk président par exemple président Irak wala mu nekk buuru saoudia jug nekk comme Mohamed Ben Salman xam nga Mohamed Ben Salman malheureusement bu papaam tuddoon Abdoulaye rek mu nekk Mahdi de dafa mooy. waaw ah, ah, mooy na moom Mahdi yëpp mooy na. <laughs> Mahdi yëpp mooy saay-saay boobu MBS. MBS saay-saay bi yow uh-huh. dañuy def yow beneen live bi nga xam ne semaine bii dañ koy dañ koy defar. incha allah ci wàllu ci wàllu parce que gis naa eh, jàngat bi. jullit yi dañoo soxla am jàngat yu méngoo yu yi nga xam ne koy dégg mën koo xam mën ko comprendre. xaaral ma boo léeboon ak lippoon yu bëri nga xam ne léeboon ak lippoon yu dafay gën a jaxase xel jullit ñi rek. xaaral ma jox la une exemple boo xamante ne benn taxaw seetlu la woon bu ma suñu université Malaisie. di ma ko defee hmm. suñu yenn professeurs yi dañ doon yéemu ci yàlla. Hmm. ci aayawu arrahmaanu alal arshi stawa dégg naa sànq nga junj. Hmm. xaw ma non sa benn hmm. vidéo laa doon déglu nga wax ci ar rahmaanu hmm. ala arshi uh-huh. wax naa ko ci conférence Touba bi mais dama ko brosé ma ne leen hmm. buñ ko firee buñ ko firee ni ko ñoom Tabari ak ñoom Ibnu Kasir daan firee benn scientifique benn scientifique du dugg ci l'islam wala benn astronome dëgg dëgg naa nga koy wax dëgg naa nga koy wax yaaram ba si génétique ba loolu lu tax mooy arrahmaanu alal arshi istawa nga ne yàllaa ngi toog ci kaw asamaan wala yàllaa ngi nangam yàllaa ngi nangam mm-hmm. alors que istawa boobu ci alkuraan boo ko xoolee dafa am yeneen maanaa mm-hmm. yu yooyu dëgg la xam nga sens littéralu istawa bi jiitu mm-hmm. istawa istawa buy firi yemoo loolu maanaa saana bi la mooy deuxième sensu mot bi la waaye du premier sens dëgg la premier sens bi moom mooy mbir moo xamante ma ne premier sens moom mooy mbir moo xamante ne yegg na ci raayam yegg na ci sommeem mm. léegi mën a tuna continuer soit mu daanu soit mu dellu ci suuf dëgg la léegi buñ ne arrahmaanu alal arshi stawa léeg-léeg nga dégg mu ne summa stawa ila samaa yi léeg nga dégg mu ne summa stawa alal arsh mm-hmm. seetlul benn affaire amul mm-hmm. fenn fu muy wax summa stawa mm. sama u topp ci mu wax ala samaay ila samaay rek ngay dégg. dëgg la. saa yuy wax al arshi nag moom du wax ilal arshi waaye alal wax. alal arshi. Mhm. waaye du wax ila du wax ala samaay ila samaay lay wax. lu tax mhm. mooy yàlla bi muy bind yàlla bi muy bind mbir yi. Mhm. xalaqa samawaati wala ayaamin summa stawa ila stawa ila sama sawahuna dafa bind asamaan dafa bind suuf ëlbatiku pour bind asamaan hmm. léegi nag bu mu ñëwee ba ci asamaan si mu ne su mastawa alal arshi mooy ba mu bindee alal arshi ba pare ci la ci la ci la tëj ci la pare ci la conclure li mu bind léegi nag jeex na amatul hmm. benn créature bu bees boo xamante ne yàlla def na ci aalam boo xamante ne am na hmm. léegi summa stawa ala samaai ila samaai wala summa stawa ala al arsh xam nga yàlla dafa wax ci alxuraan mu ne xalaqa samawaati wal arda saa yu wax fii sittati ayaamin fii sittati ayaamin dafa bind asamaan ak suuf ci juróom benn fan benn fan te ñun xam nañ ne dawratul ayaam yi saba la juróom-ñaar la duwul juróom benn dëgg la léegi benn fan bi benn fan bi moom fan la dugg dëgg la gaa yi dafa noppalu te yàlla moo yàlla moom moo ne kullu yawmin huwa fi sha'nin yàlla du sonn yàlla du sonn bay noppalu wallahi dëgg la parce que moom moo wax ne walam yaaya bi xalqihinna maanaam sonnul ci bind gi mu leen bind léegi benn fan boobu noonu arche boobu la ko bind moo tax ba mu tegee fii sittati ayaamin mu ne summa stawa ila ala al xalaqa samawaati wal arda fii sittati ayaamin summa stawa ala al bind naa asamaan ak suuf ci juróom benn fan topp ma bind arash wala topp ma istawa ci hmm. kaw arash mooy topp ma jublu ci arash hmm. très bien hmm. waaye suñ xel yi du fa yegg parce que ay léeb la dëgg la dëgg la malheureusement malheureusement beaucoup d'incompréhension beaucoup et malheureusement ah, malheureusement euh, umma bi dañoo am problème ay borom xam-xam dëgg la dëgg Aliou Diatta Aliou Diatta ne heureusement El Cheikh xam-xam yi ngay wax nii amu ko ndax bu ko amoon moitié Sénégal yi dañ koy topp Euh, léegi <laughs> am nga hmm. li ñu li ñu gën a lor mooy ñi bind suñu téere yi dangay gis da gis benn waay joo xamante ne il est à la fois muhaddis faqih lugawi mufassir mu arix maanaam il écrit sur hmm. taarix il écrit sur tafsir il écrit sur hadis il écrit sur nangam il écrit sur nangam hmm. finalement spécialisation bi war bu xóot bi war du ko am léegi day bind taarix avec un esprit de muhaddis effectivement dëgg la alors que balance su taarix balance su xadis bokkul bokkuñu was dëgg la très bien paramètre wu taarix lii saxal les faits historiques ak ni ñuy gisee histoire ni ñu koy jàngatee ak paramètre wu xadis xaddasana xaddasana bokkul waaye ku mel ni ibnu kasir bu jëlee bidaaya wan nihaaya di ko bind ak esprit wu muhaddis bépp fee hmm. bu ñëw ci taarix bu ko neexul wala bu wuuteeg astaxaabatu kulluhum udul wala bu wuuteeg nangam wala mu tëb ko wala muy changé ko wala mu ne wérut changé ko soppi ko rek waaw ah, dëgg la moo tax gis nga les historiens occidentaux ñoom ñoo ëpp aqliya xadis parce que ñoom dañuy taxaw xool mbir mi ci benn bëtu historien moo xam lahum wala alayhim mu nekk pour ñoom wala comme ñoom bëtu historien la contre ñoom effectivement dëgg la alors que les historiens musulmans ñoom dañuy xool mbir mi bëtu mazhab yi lii dëppoo ak sama mazhab kon naa fexe mu wér lii ute naa sama mazhab même bu wéree naa fexe mu daif c'est vrai c'est vrai malheureusement maa ngi jéggalu xam naa guddal wax ji amul solo maa ngi jéggalu bu baax xam naa njariñ la njariñ bu gànda gànda la dañ ko dañ ko war a jàppal. jariñ la waxuma sax ñu diggante <laughs> waaye suba ñi yeew war ko jëriñoo ñoo bëri loolu ndax daayira bi suñu daayira dañoo dañoo dañoo gars yi macha allah. gars yi YouTube la ñuy fekk ci waxtaan bi. ndeysaan dina jëriñ lu bëree bëri lii ngëneel la. ndeysaan waaw pour yéen ñi ko xamul na kii muy tudd Cheikh Baye Niass moom macha allah <laughs> euh, ku yàlla defal tawféex la. nañ ko jàppal beneen baax la incha allah ñu gën a yaatal xam la incha allah rabbi incha allah bismillahi wa quwwatihi kontaan nañ lu wér vraiment kontaan nañ trop kontaan naa trop macha allah wallahi jégalu bu baax a fay la yiw yàlla yàlla dëgëral des waaw yàlla yàlla def noonu guddi gi kay guddi mooy suñu heure ñun moom guddi mënuñu koo nelaw <laughs> ndeysaan macha allah ci zikr ñu ci dañ ciy waxtaan rek ci naafi naafi la rek ñu ci naafi la instant yi ah lii sax zikr la de coupé naafi la la zikr bu am solo la suñu paree dem jëli gurus bi incha allah mais mais bëgg nañ lool wax dëgg yàlla yàlla yàlla fay la خم نغا شيخ تيان رضي الله عنه دون واخ نه ملاقات الاخوان والاحباب خير من قراءه الاوراد والاذكار والله لان والله. الاذكار تقضى اذا فات وملاقات يقضى اذا فات لا تقضى لا يقضى والله عزيز دغلا وقتنا صوبي صافوانت نيو مو غن فوف توك سي دغلا دغلا دغلا ngay tok ci deg weso mën nga ko fay waye li mom bu weso ko fay wallahi desan li ndeysaan euh, daf ma ci marqué woon ci benn jotaay mu amoon fële ci Maroc macha allah. yàlla na dëgg la dëgg la. waaw bi nga xam ne moom ca Nassane dem mu ngi ko ndeysaan. ndeysaan macha allah. mais mais macha allah macha allah. jërëjëf Cheikh Omar kontaan naa trop. su ma dégloo su ma dégloo damay bég damay dégg kilifa yi xam ne damay dégg salaam bi damay dégg sama gars yi xam ne ñoom laay béggee man. parce que man fii nii. daf fi daf fi bëreetul ay nawle wax dëgg yàlla. yaay yaay sama sëriñ nag ci yow laay roy. Eh, di nga Ahmed Ahmed Baye la Ahmed moom c'est quelqu'un de très critique nit ku nit ku xelu la te te nee na da nga war a ñëwaat nee na foog nga ñëwaat ci live bi <laughs> incha allah on va programmer ça on va programmer ça dans quelques jours incha allah comme ça ñu waxtaan un peu ci wàllu waaw man dafa sax benn téere moom bi ma waajaloon pare na sax waaye publié gu ma naam tuddee ko tanqiix tanqiix laa ko tuddee woon naam donc euh, tanqiixul aqwaal ci saxiix si ñaari saxiix yi saxiixay nii mm-hmm. euh, ma jëloon si ay tuuti xadis yoo xam ne dama nekkoon di ko topp historiographiquement Mhm. parce que lii moom c' est totalement erroné et c' dëgg la donc euh, macha allah mais xam naa ne yow moom il faut ñu ñëwaat ci wàllu aaxiru zaman. ci wàllu baat yi ci wàllu yëpp nga xam ne euh, lënt na ci bopp jullit yu bëri. dëgg la dëgg la danañ ci danañ ci waxtaan lu yaatoo yaatu parce que itam wax dëgg yàlla. lislaam mhm. lislaam bàyyi ñes mhm. radiyallahu anhu daan wax ne. diine diine la boo xam ne pour ñëpp la pour fépp la. dëgg la aw la. kon loolu dañ la ci ne lislaam jamono ju nekk du wuute ak dégginu ñoon jamono. dëgg

nga bëgg a jël alxuraan di ko interpréter ci jamono joo xamante ne troisième siècle. sixième siècle ay lampe ah, sondel amutoon. Ah ñooñu ñooñu bu ñu gisoon ay buntu yuy ubbeeku à la présence physique dañ naan jinne la wala dañ naan waa ji xutba. dajal dajal ñëw na dajal ñëw na nag. <laughs> donc gis nga il faut il faut ñu xoot ñu jëlee l'islam bi mu nekk suñu arme alxuraan bi mu nekk suñu constitution pour suñu àdduna développé mais pas ñu jël alxuraan. ak l'islam nar koo limité ci dégginu benn euh, nombre de siècles moo xam trois siècles la wala six siècles la yemale ko foofu nous serons dépassés par le temps waaw ñàkk xam rek wallahi wallahi le Coran est un message pour tous les temps pour tous les peuples waaw à toute la waxal yàlla waxut ak benn siècle bàyyi ñeen si kon duñu concerné waruñu ko topp kon lu tax lu tax yàlla wax lu tax yàlla wax yonent bi ci alxuraan ne ko li tuxrijan min az-zulumaati ila an-nuur ila nuur dëgg la Baye Niass Baye Niass radiyallahu anhu dafa wax ne yónent bu yàlla mës yoon ni bu koy hmm. jox risaala daf ko naan an naxri xawmaka min azulumaati ila a nga génnee sa hmm. xeet leen ci leer waaye yónent yàlla wax ne di tuxrija naasa min azulumaati ila nuur nga génnee nit ñëpp nit ñëpp nag wallaay dëgg la nit ñëpp waaw ka njëkk juddu ba ca kay mujj a juddu ci nit ñi lañ bokk hmm. kon il faut ñu gis hmm. seen bopp ci leer googu noonu buñ ko gisul rek am na lu manqué wala am na ñu ko devoir effectivement effectivement on a tronqué le message su ko gisul rek on a tronqué le message absolument absolument ah, mais mais alhamdoulillah ma sha allah alhamdulillah wallahi content na trop content ah, na trop ayadaka allah amin amin amin ayyadakum aidan ok on va on va coordonner na après na na def signe on va préparer ah, na na def at gaay bu ko préparer baax na inshallah inshallah jere jere jere jere yal yalla gërëm te yal yalla sam sa sàmm amin amin amiin yalla ful ko ci ci ci dara dara jey ak ci dayo yërmandeem ak magayam amin amin ya rabbi alhamdulilah macha allah jërëjëf Yacine jazakumullahu khairan jërëjëf Mouhamed yaak assalamu alaykum wa rahmatullah waaw macha allah mbokk yi donc euh, li mom ñu wax amatuma man lu ma ci tek donc ki mom sama serigne la ki mom euh, bokk na ci ñen ñi xamé euh dama ko nangul euh, naw ko ba pare euh, nangu ko di ko déglu ndax man fi gaa yi ba dama leen jàppewul nawle sax dama leen dul déglu waaw wax dëgg yàlla mais moom macha allah yàlla na yàlla dëgëral ko te sàmm ko donc xam naa nañ ñëwaat ci wàll gi pour gën ko yaatal waaw donc tey moom. c'est que ñu bëri xam naa ni dañu ne eh tey moom spécial tarixa tijaan la woon on parle la tijaan donc euh, alhamdulilah nag panel bi ñëpp ay macha allah ñu am ubbeeku ñoo fi nekk euh, nous sommes pas dans la sectarité mais seulement euh, mal bi ñu doon décrire si tarixa tijaan la nekk moo tax il fallait que wax si tijaan ya il fallait que ñu woo ay tijaan yi ñëw wax ci alors que la waaye wax dëgg yàlla ñun islaam moo ñu ñor islam képp moo ñu ñor te ndamul islam kese la ñuy wër. alhamdulilah rabil alamin donc euh, bëgg nañ bu baax Ameth Ameth Diop Ameth Diop moom c'est un grand daanaan Ameth yow foog ñu jokkoo après y a des choses yu ñu waxtaanee ma ak yow incha allah donc di ziare ñëpp euh, Cheikhouna Nata Lo ah nuyu nañ ñëpp wax dëgg yàlla et ça c'est le grand panafricain Kayz Fof. Euh, ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la dalal di la jox sa wàccuwaay macha allah tamit ku am njëriñ ci Afrique la ku am njëriñ ci nit yu ñuul la. yàlla na yàlla tamit dëgëral ko te sàmm ko par rapport ak xeex yi mu dëgmal euh, yàlla may ko ci ndam ndax ndamam ndamu Afrique yëpp la te ndamu humanité bi yëpp la sax incha allah alaaji is donde ah, ça c'est le grand pôle naa la bu baax donc xam naa ne j'ai pas retenu davantage lool xaa ñu dem waajali mbir yi donc euh, amish amish ngom wallahi islam kese mooy problème bi la problème islam la islam ñu koy attaqué division bi du avantage am il faut être unis et suude mooy mooy avantage bu islam donc yàlla na yàlla boole jullit ñi euh, def leen benn bañ a xajal seytaan seen diggante donc euh, lépp luy caay-caay ak lépp luy yàq yàlla yàlla fegal ñu ko te sàmmal ñu ko ci islam lépp luy jëmale kanam islam di ko dooleel di ko defal tawféex yàlla nañ si yàlla dimbali gën koo dëgëral te gën koo sàmm wa zalikalaahi bi aziz donc wa axiri daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin suma asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh